mbokku téléspectateurs rawatina yéen yi nga xam ne saa su ne yéen a safoo seetaan la chaîne sénégalaise bienvenue si seen biir émission au fond des choses ma leen di fàttali au fond des choses émission bu nga xamante ne li ko tax a diagnostiquer le problème quotidien des sénégalais xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la sénégalais di jànkonteel ñu indi leen ko si seen biir émission au fond des choses tey nag thème bi ñu leen indi mooy crise universitaire ndax gis nañu temps université Cheikh Anta Diop dafa jax bu baax am ay problème ak ay perturbation balaa boobu yéen mbokku téléspectateurs yi dam leen di bàyyi ñu xool nga xamante ne loolu sommaire bi sommaire bi tey nag lan lañ leen indil moy historique université Cheikh Anta Diop ki nga xamanteni moko moo ko den jëlee mooy kenn ku dul madame kan Mame Nar Mbengue bu ñu joggé ci loolu dalal leen suñu micro ñi nga xamanteni ñom ñoy étudiant yi parce que problème bi yëpp ñoom la réforme yi bourse yi seen cadre campus social bi li ñu duggee jafe-jafe yi nga xamanteni ba tax na lu bëri xew na si bu ñu joggé ci lool dem nañ talal suñu micro organisme yi li ci melni ni ONDH ak ñi nga xamanteni ñoy moy SAES ñom ñoy e jappalé étudiants yi mëna wax ni sax ñom ñoy euh, avocat étudiant ma bàyyi leen tuuti ñu dem seetaan nga xamante que ni loolu mooy historique université Cheikh Anta Diop ñu Mme Kan ak madame Kane Mame Nar Mbengue dem émission au fond des choses laata muy nekk université Cheikh Anta bu Dakar daara bu kawe bi nekk fii ci Sénégal ñu ngi ko duppee woon école nationale bu AOF maanaam Afrique occidentale française jamono di dox mu dem ba ci fanweeri fan ci weeru mars ci atum 1987 lañ koy daal di jox turam bi nga xamante ne moom lay wuyoo ba léegi mu di université Cheikh Anta bu Dakar nemmeeku nañ moom li mu mën a daal di dalal toll na ci 23 253 étudiants waaye

ak faculté technologie ak éducation formation faculté médecine pharmacie am tamit lu toll ci ñenti ecole ak fukk ak ñaari institut moom daara bu kawe boobu nag ñu nemmeeku euh, kàngam yu bari yu nekk fii ci Sénégal wala ci bitim réew euh, ñoom daal dinañ ci génnee loolu yépp ci euh, qualité jàng bi nga xamante ni doon nañ fi amee léegi nag ñu daal di nemmeeku àddina di dox université Cheikh Anta Diop bu Dakar di eh, daal di am ay coppite ci wàllum jàng mi ci wàllum xeetu nekkin foofu loolu nag dëppoo na ci ay xeetu xoxotal wala ay xeetu li nga xamante ne moo di fippu maanaam ñu tuddee ko eh, grève loolu nag ci wàllu ñi di jàngale wala ñi nga xamante ne ñoo di ndongo ya ci kaw loolu nag liñ ci gën a nemmeeku eh, bokk na ci mbirum laaj koppar maanaam di seen bourse wala seen i nekkin loolu dem ba coppi xar kanamu université Cheikh Anta bu Dakar looloo waral nag kàngam yi ak ñi nga xamante ni ñoo di njiitu université Cheikh Anta Diop boobule di daal di xool ana naka lañuy def ba daal koy génne ci crise universitaire boo nga xamante ne jamono ji moo lëmbee àddina dema dem nag ba di jur yenn ci xeetu fitna yu mujj ba ci bakkan gu rot université ku ko dégg xam ne foofu tataaxukaay xam-xam la kon nag war nañu gaawandi taxaw tembe ngir indi ay fajtal ci yu mel balaa li nga xamante ne moo di jàng wi di soxe ba faw gis ngeen historique bi nga xamante ni moom la madame kan Mame mbeng dem jëli ji woon seetaan ngeen ko gis ngeen université bu démb ak bu tey ni mu meloon gis nañ ni changement am si parce que gis nañ université bu njëkk ba ñi nga xamante ne ay kàngam nañ ñi nga xam ne tekki nañ ci réew mi te amul benn problème jaar nañ si université Cheikh Anta Diop gis nañ changement bi nga xamante ni moom moo am ren université bi léegi dafa changé depuis des années à chaque fois problème ay front lu nekk am ci ba tax na ñu bëri nakarlu lañ ko bu ñu jógee ci historique bi nag dañuy dem tàllal suñu micro ñi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants yi parce que université étudiant la tax wax élément étudiant au fond des choses L'intifada a encore repris aujourd'hui à l'icad. Des étudiants en bloc, Pierre à la font face aux forces de l'ordre, toujours pour réclamer leur bourse. Des gémis éparpillés un peu partout, de la grande porte à la petite porte. Casque à la tête, armés jusqu'aux dents. Nous voulons nos bourses Depuis 9 mois, donc, les étudiants réclament leur bourse. Et je pense que les gens aussi ne peuvent pas vivre à l'université sans argent. Ils, leurs parents, donc, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, ont quitté donc, les régions pour venir ici dans cette université, c'est pour le savoir. Raison pour laquelle les autorités ils doivent réagir. Elles doivent réagir le plus rapidement possible. Depuis neuf mois, les étudiants n'ont pas perçu leur bourse. Et vous savez, vous tous, que ici, on ne peut pas étudier sans bourse. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, nous sommes sans bourse et nous sommes sans nouvelle carte étudiant. Au moment où leurs camarades font le front, ces étudiants sont devant les guichets automatiques dans l'espoir de percevoir leur bourse. Devant la grande porte de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, des voitures de police stationnées un peu partout, du sang par terre. Mais cela n'empêche pas les étudiants de mener leur bataille. Nous sommes ne place bi nga xamante ne dañ ko occuper ci société bi kenn négocié len fa ñaari at yi nga koy négocier ak gouvernement di dem ci hôtel yi di dem ci di tok di autour des tables ñun dañu ne amaluñu ben bénéfice amaluñu ben njariñ ci kaw étudiants yépp di ñaan nguur gi place bi nga au sein de la société ñu ko ko lolu nek lo xamantene ni ku ci nek mu ngi sacrifice physique sacrifice financière sacrifice de sang sacrifice de temps pour que nous ñu Nous ko ñu ngi ci pour que buñ nee ben étudiant ne ben logement nous ngi xeex ci pour que buñ nee ben étudiant ne ben carte GAB ñu ngi xeex ci loolu. Si buñ êtes un étudiant ne ben un ñu ngi ci ci étudiant diplôme universitaire ñu ngi étudiant une considération au niveau du Sénégal mu un combat bi nga engagé wu sans relâche té idéal la ni on s'engage aujourd'hui à l'accomplir et à donner notre vie ngir lolu nonu mu donne idéal bo aussi Vous ci nous sommes venus avec les réformes nous sommes venus avec tout le mal des réformes et aujourd'hui et à preuve ça se vérifie que gis est tombé sur le front des étudiants pour la cause étudiantine comme nous l'avions toujours défendu aujourd'hui ce que nous disons et comme vous l'avez constaté comme vous l'avez tous vu ces réformes ne nous ont amené que du mal et surtout nous, ñi nga xamante lors des premières altercations du, 22 mai, 50, 50 nouveaux bacheliers, 50 nouveaux bacheliers ont abandonné. Billahi wallahi wa ta'alahi, à ce que nous avions enregistré. Et je ne peux même pas vous compter combien de bacheliers vont abandonner cette fois-ci. Donc vous voyez, si on veut former une élite, il faut avoir foi et il faut avoir confiance en notre jeunesse. Il faut la culture de l'excellence. Et cette culture de l'excellence ne se passe qu'à partir de la seule volonté des autorités de droit. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de communauté euh, universitaire parce qu'il serait inclus Nian. Et jusque-là où on vous parle, nous ne reconnaissons pas comme notre autorité de tutelle, ni les étudiants, ni les professeurs et ni les parents ne le reconnaissent comme notre autorité de tutelle. Donc je parle au nom de la communauté universitaire, excepté le soi-disant Marito, et disant qu'aujourd'hui, camarades, Appelons à nos forces, unissons nos forces et combattons cette injustice. Et sachons qu'aujourd'hui, nous les nouveaux bacheliers, nous sommes traumatisés par ce qui se passe à l'université. Nous sommes voués à l'échec, à l'abandon et au traumatisme sans fin. déplorer vraiment tamit par rapport que amul nu ko étudiants yi taxawul tey jii moom ennemi numéro un nun la xam na nu ko nag xam nañu ni ennemi numéro un nun te bi problème bi amee gis nañu li mu waxaat nee na il va mettre euh, day teg loxoom ci réforme yi amul benn problème nun lii la nu mën a fayee quoi parce que su la neexee nit ji lu rafet nga fayee ñu lu bon moom moom waruñu woon a taxawee parce que dafa war a xam ne instant bii nii doomam su doon ay doomam a nekk fii du taxawee ni muy taxawee ñun ay parents la ñu am dañoo ay yaay am ay baay ñoo xam ne dañ ñoo yaakaar respecté wu ñu moom loolu la war a def te ne comme ay moo fi nekk mais dañoo jàppe comme ñoo xam ne ay ennemis lu ñu mais du lenn amul lenn li ñuy xaar mooy justice na def liggéeyam doomi jaamur la rey su doon doomam la nu rey day leer nañ ñoom ñoo am loo xam ne may ñu ko ñoo ko moom may ñu ko ñoom seen i seen seeni seen i seen i paiement balaa le vingt avant le vingt cinq ñu fay leen c'est ay millions la ay trois millions ministre trois millions ko fay par mois balaa le vingt cinq ñu fay ko ñun dix huit mille mën ñu koo fay ba le quinze mën ñu koo nu ñuy def dañuy seetaan nit yor sa xaalis war la ko jox joxu la ko da ngay taxaw di seetaan da ngay dem nga reyaan mu jox la sunu xaalis parce que ñu may ñunu ko moomuñu ko retour si seen biir émission au fond des choses gis ngeen élément bi nga xamante ni moom leen demoon jëlee ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy étudiants yi gis ngeen étudiants yi li ñuy kaas bëri na seen bourse yi jot à temps am na ñu nga xamante ne nii si bourse yooyu la ñuy jël di suturlu ci di mën a yónnee ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen parents chef de l'état ah, bu fekkee bourse yi mën nga ko gaaw a joxe pour élèves yi ak ñi nga xamante ne ni mooy condition de vie yi ci xam xamante yu bëri étudiants yi kaas leen ko yéen mbokku téléspectateurs yi seetaan ngeen ko xam naa ne sax seen xol tooy na si mais bon c'est la vie kenn ku nekk ak li nga xamante ne moom la sa destin di kii bu ñu dem nañ ki nga xamante ni moom mooy médiateur université Cheikh Anta Diop de Dakar nañ dem seetaan élément boobu te ñëwaat ci suñu biir émission au fond des choses liggéey médiateur moo di ki nga xam ne dafa nekk fii toog seen seentu gis problème di ñew mu dem gatanduko pour mu baña am moy prévention légui su fekkee ne gis na yi di ñew su ñewé mu na mu jur musiba mu dem fi fu mu wara dem ne li nak su amé yaakar na ne du baax légui nak ñu téla jog jëm ko safaral mais su fekkee ni toog na bi problème am fekk nag léegi problème bi am na ñu ngi ci biir problème bi liggéeyam mooy seet ñiy seq problème boobu fexe ba ñooñu toog ñu waxtaan trouver solution loolu mooy médiateur loolu tamit su amee mu nekk kiy topp engagement ñaari parti yi di saytu ndax partie bu nekk respecté na li mu waxoon donc loolu mooy liggéey médiateur takk der yi pour ñu ñëw fi duñu du seen coobare rek ñu jóge fale rek bàyyi seen liggéey ñëw fi dañ leen di woo te suñu leen wooyee fii tamit dafa am lu xew mën na am ñii nekk fii ñu nekk responsable kilif kër gi suñu gisee ne mbir am na ci biir université bi te mën na am mbir moomu jur ay ay ay ay ay ay ay daal ñu mun ci saa te heure boobu la ñu la ñuy woo la ñuy woo policiers yi te pour ñu woo policier bi recteur bi recteur bi ci boppam fokk mu concerté assemblée de l'université te suñ concerté woon université ci su fekkee ne seet nañu daal mbir bi laaj na policiers yi ñëw ci lañu ko wax ni wool policiers yi ci lañ ko wooyee donc noonu la demee moom la moom la li ma lay wax d'abord waxtaan ci suñu biir su fekkee ne xam nañu lii suñu ko defee dina dina jur lor ñu bañ a ko def toog d'abord seet suñu problème ñu xam ne lii problème la ñu leen d'accord nañu ko lii nii moom problème lan moo ko saafara ñu ñëpp ñu discuter ñu nga xam suñu defee lii daal problème boobu dootul amati ñu def noonu pour def pour problème bi yëpp problème yëpp. loolu suñ ko defee rek dootul amati problème non retard retard retard bi ci li ma xam te wax nañu ko euh, ci li ma xam lii indi retard bi mooy ministre bi ñëw dafa gis ne à un moment donné que am na lu doon am na lu doxul woon ci mbirum attribution bourse yi mu mu commencé nag di enquête di seet ba gis nañu résultat yi mom ci bopam deg ñun ñepp ñoko degeendo neena amna ci 35000 yu nga xamne ñu ngi doon jot jot seen bourse te amuñu won droit bourse bi te lolu pour ñu déceler yoy yépp day jël temps donc lolu ci retard bi indi na amna lu mu indi ci retard yi paiement bi ba lolu mom mën na ba mun naa ko wax li ci dess moy su fekkee ni man laaj nañ ma sama xalaat ñun ñepp wax nañu ko amna ñu ko wax sax bala man bourse bi comme dañ koy ci budget dañu voté ñu ne lii daal ci de côté xaw état bi su de côté à la disposition des étudiants ñu régulièrement problème yéen mbokku téléspectateur u SS gis ngeen li nga xamante ne moom lañ demoon jëlee élément bi ci li nga xamante ne moom mooy le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar joytu na li nga xamante ne moom moo am ah, gis nga médiateur rôlam mooy problème dafa am mu ñëw al diggante bi xool li nga xamante ne li pour am solution pour jàmm mën a am ñu ngi koy jaajëfal bu baax bu ñu jógee ci li nga xamante ni moom mooy médiateur dañuy dem ci euh, li nga xamante ne moom moo xew récemment ba am ci ay décès mooy décès Basirou Faye nañ seetaan élément ak témoignage yi nga xamante ni moom lañ def si Basirou Faye te ñëwaat si seen biir émission au fond des choses Nous sommes très conscients aujourd'hui. Je veux nommer tous ceux qui nous ont parvenus, nous ont fait parvenir des bus. Il y en avait à beaucoup, il y en avait beaucoup à l'université, le monde qui était là-bas, tous amenés par un sentiment de regret, un sentiment de peine. Aujourd'hui, tous vont, sommes là pour aller accompagner Basse dans sa dernière demeure. Ceux qui le connaissent par sa générosité, parce que je vous dis, Basse était celui qui, depuis son arrivée à l'université, recevait les étudiants qui n'avaient pas là où aller, et je vous dis, pas seulement d'Urbellois, mais des autres régions, qui recevaient les étudiants, leur donnaient des tickets, leur orienter par rapport à la situation perplexe que certains vivaient. Voilà le rôle que Basse jouait. Chères familles, soyez rassurés, soyez soulagés. Vous avez perdu un ange qui s'est fait abattre au, dans, un champ de combat, qui ne défendait pas sa propre cause parce que les gens qui l'ont vu à terre, il y avait de l'argent dans ses poches. Donc il n'était pas dans le besoin. Mais il a sacrifié sa vie pour la cause de tous les étudiants. Qui ne réclamait autre que... Qui ne, Permettez-moi. Qui ne réclamait autre que quelque chose pour aller avoir un ticket. Mercredi dernier, le 20 août précisément, je me rendais à Touba pour la célébration du centenaire de la naissance de Cheikh Abdullah Ahad et salut sur lui. Lorsque sonna mon téléphone, au bout duquel j'entendis la voix du papa de Bassimo Faye. Il me dit, honorable, notre famille vous donne la mission de parler en notre nom le jour de la levée du corps. Et nous voudrions que vous délivriez à l'attention des frères de Bassirou Oufayé, des étudiants, de ses enseignants, de sa famille et du Sénégal tout entier, que moi, Mamadou Faye, père du défunt, je ne souhaite que la paix je souhaite que la paix accompagne ceux qui, ce matin, ont décidé d'accompagner Bassirou Kassade bien demeure. Je vous mentionnais particulièrement ce millier d'étudiants. Beaucoup m'ont interpellé ce matin. Il y a tellement de bus qui sont mis à leur disposition, mais ce n'est pas assez. Ils vont tous venir à Jopin. février 1986 et moi, c'est C'est Julius, fils de dieu Celui dont l'université porte désormais le nom. Ce même 2 février 1986, et né dans une clinique de Dakar, Bassirou Faye. Futur étudiant de l'université cher Diop. Bassirou avait fait de cher son idole. Et comme le prescrivait celui-ci, il voulait s'armer de science jusqu'aux dents. Un matin du 14 août, l'éclair d'un bras armé l'a foudroyé dans son envol. Le disciple a rejoint son maître dans l'éternité. Décidément, il est d'étranges croisements, d'étranges connexions dans le destin des êtres que nous, les simples mortels, avons du mal à comprendre. Paix à paix à Sheranta Diop. Paix à Omar blondet Diop. Paix à Balagaï. Paix à l'Université Dakar et à toutes les universités du Sénégal et du monde. Paix à mon pays. Je vous remercie. Bassiro appartenait à la faculté des sciences et techniques. Aujourd'hui, la tristesse se lit sur tous les visages. La communauté universitaire est en deuil. Elle est en deuil et vous comprendrez l'émotion que mettra. Bassirou Faye est parti. Il est parti sur la pointe des pieds. Il est parti sans pouvoir réaliser son rêve celui de devenir mathématicien. Hélas, une perte pour notre pays. Au nom de toute l'université, de toutes les composantes de l'université, transmettre mes condoléances à la famille de Bassirou, la famille éplorée de Bassirou, mais aussi à l'ensemble des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et techniques. Nos condoléances les plus attristées. Et prions pour que le bon Dieu accueille Bassirou dans son paradis et qu'il puisse continuer sa jeunesse, étant donné qu'il est parti à la fin de l'âge. Merci. Nous demandons au bon Dieu qu'il euh, accueille Bassirou Faye à son paradis. Et nous présentons nos condoléances attristées à la famille éplorée. Une règle waaye lettre la bu nga xam ni bii mu neex la nga jàng ko mu naqadi la nga jàng ko te yàlla jox nañu lettre bu nga xam ne bii depuis 14 siècle 15 siècle muy alquran te kenn jàng ko waaye bii moom mu neex la nga jàng ka mu naqadi la nga jàng aw lam yaraw anna nati l arda nanqusuha min atrafiha wallahu yaxkumu la muaqiba li xukmihi wa huwa sariul xitab laa muaqiba li xukmihi yàlla moo dogal kenn du commenté li nga xam ni moom la dogal kon nag ñu ñaan ñu jàng fatiha ak benn salaatu ala nabi ak juróom-ñeenti ayatu kursi ak juróom-ñaari alam nashrah juróom-ñaari inna anzalnahu fukki qul ko ndax la bés la bu nga xam ne bii ku nekk daa soxla te bés boobu su ñëwee du ay discours ngay soxla waaye ay ñam ngeen soxla yéen mbokku téléspectateurs yi gis ngeen témoignage bi nga xamante ni moom lañ def si Basirou Faye mu nekk témoignage bi nga xam ne mu doy waar la ci ay xaritam ak ki nga xamante ni moom mooy doyen faculté science ndaxte machallah nee nañ Bassirou Faye xale bu baax la woon xale bu nga xamante ni jàng rek a taxoon a jóg xale bu nga xamante dafa daan dem sax di photocopier ay di jox ay moromam pour li nga xamante ni ñu jàng pour mën a am ay moyens buñ jógee ci loolu nag dañuy dem bàyyi leen yéen mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan huitième jour bi nga xamante ni demoon nañ jëli ko ci étudiants yi mbokku étudiants yi te defaraloon ko que biir université dem tamit seetaan yi nga xamante ni hôpital principal la xewee woon levé du corps bi ak bañ koy yóbbu fi nga xamante ni moom mooy dernière demeure am ca Touba yéen mbokku téléspectateurs yi nañ dem seetaan élément boobu te ñëwaat ci seen biir émission au fond des choses Bas ñoo bokkoon euh, chambre 51 euh, ba pare ñoo bokkoon faculté aussi à la faculté des sciences et techniques bon Bas je crois témoignage bi su may wax ci Bas euh, tey mën naa ni fi laa yéen parce que Bas nit ku baax la woon wax dëgg yàlla ñi bokkoon chambre yëpp xam nañ ko bas à chaque fois lépp lu mu am da koy bokk ak man mun naa ni bas su nekkoon xaalis rek la dee ñu posetam avant muy dee wala wala bi mu dee ba gisoon posetam posetam yaakaar naa ne dañuy xam ne bas du xaalis moo taxoon mu newoon fii di combattre ba dee. parce que man nekkoon nag moom euh, deux avant avant dee fii midi à quatorze heures ñu toog waxtaan lu yàgg si la ubbee posetam man ma naa poset dafa rafet affaire gis xaalis bëri su nekkoon xaalis la tey moo taxoon muy xeex dee du xeex xaalis poset lu mat mais je crois pour bëgg intérêt étudiants yi ñuy xeex ñu am ko lool moo taxoon moom descendre sur le terrain mais bas su ma nee seede ci moom daal bas bas wax dëgg yàlla ku baax la woon ku bokk ak nit am na étudiants yu bëri fii ak ay étudiantes yu nekkul a del bas moo leen logé bas première année la def ren la woon première année fii mais li ñu fi def am na ñu def cinq cinq ans wala sept ans defaluñu ko kenn bas couloir même bu daan romb étudiant ci couloir nii muy fanaan ci couloir danaan mer am mën ko fo dekk mën ko xoma fan la dekk ala say bagage mën ko bagage mën ko fële am ko andi mu jël ko mu fat ci bir néegam xam nga lol tay nit ku bax rek mo meuna def lol man bas yaakar naan dal lu bax la xaw chambre ataaya ji bu xey suba bay Fall sa lañ ko doon woowee bas ñi naan nga bas yokku de la leen ko don wax cap foré journée bi mu dikkee même from mi commencé fekk fi parcelle da nekkon bi mu dikkee même yek chambre fekk ma fa ma dan télé dafa tok mu ma war mo ñibisi quoi man nga ah, bas from peut-être lay mu jeex man mo war mo ñibisi war na yàlla mu regretté mu toog ba si mu jox boobu mun ma ne war moon ñibbisi war moon jóge parcelle man ko ah parce que CRA front peut-être léegi mu jeex mu génn benn exercice mathématique mu def noonu benn TD mun ma boo TD laa am exercice maa bëgg a corriger tableau daar may wax loolu ndeysaan bi ma waxee loolu ni ma exercice maa bëgg a corriger tableau ma jaba si yàgg daal defar euh, kii jaba si yàgg daal ree ndeysaan ni ma <laughs> sama yaa dina na ma université bu bëri problème ne woon na ma bas université tam ñu rey la fa wallaahi wal azim ni la ma ko waxee ma ko ah man ma waaw man ma ah maire de daa neex rek man ma kaay fay la formation bu dem université man ko ah maire garaawal ba ma dem université rek léegi bi mu kii mu daal di jëm si waat daane ma ah waaye de maire nee na ma garaawal bi naree na néew ñëw rek li la mujjee wax kàddu boobu man ma dem de 14 heures 16 heures ma wàcc dégg ñu ne mbas si la moom ma yëgalaat ci pavillon de 27 étudiants arrêté si ma arrêté ci pavillon ni loolu daal loolu mais Bass daal nit ku baax loon wax dëgg yàlla am ñu am ñu am ñu fayam li des daal mooy ñu ñaanal ko yàlla moo talee ndam aljana famille si tam yàlla mbay leen xolum muñ waaw et que justice aussi parce que ki def acte bi war ñu ko war a rester ne doit pas rester impuni dañ ko war a kon dañ ko war a dañ ko war a punir situer les responsabilités punir ko sévèrement parce que lii bëgguñu mu xaw a université Anta Diop bëgguñu ko. waaw mu nekk mu nekk lu lu loo xam ne dafa métti lool métti na trop parce que euh, comme tey jii nii jour jeudi nii suba gi nii ma am ñoo xëy yeewandoo sangu ànd dem restaurant jëli ndékki nekk ofu tooñ at ñëw yéeg ci kaw après mu dem parcelle ñëw wàcc. ci la ñu ñëwee après bi ñu nekkee ci combat bi noonu affaire yooyu ci lañ ko mu nekk lu nu xam ne vraiment rafetlu wuñu ko benn yoon mu nekk koo xam ne dafa baaxoon si ñun il est très social moo daan organiser ataaya bi moo ko géré woon café Touba Baye Fall sax lu ñu ko doon wootee ticket bi ma ndëkkee man moo ko yëkkati jour bu jox ma ko ne ma am dama ndëkki ma am an ticket bi ma ndëkkee moo ko yëkkati jox ma ko ñu daan bokk di def lépp man ku baaxee noonu musuma koo musuma koo gis man ba ba nii may ba nii may wax ak yow damay jooy ba nii ba moment bii wax yow mooy loolu. Euh, ñun ñu ngi fi teew tey euh, ànd ak waa SAES ànd ak euh, suñu doyen faculté ànd ak étudiants yëpp kaddu bi yaakaar na ay kaddu yu gàtt la war a doon ndax Basirou dafa nekkoon nit koo xamante ne ñun étudiant fac science yëpp bu mu ñëwee ñu dalal ko wax dëgg fa yàlla gis ni moom comportement am moom première année la nekkoon mais gis nañ fi mu jëf loo xamante ne fekk na fi ay nit sax. moom dem na fi sax bo di dimbale ay nit dimbale boo xamante ne ah, yàlla rek a xam kon kooku ah, yàlla bu ñu ko fi bàyyiloon kon yaakaar naa ne mun na nekk sax ba taxaw kaddu ba taxaw fi ñu taxaw tey e ma leen ma leen woo rek ñun de xam nañ ne en tant que syndicaliste ah, kooru Basiru de waa Jurbel ak famille am ñoo ko moom mais li nga xamante ne moom lañ ko war a xeexal fii ça revient aux étudiants loolu tax ci kaddu yu gàtt may ñaan étudiants yi Sénégal yëpp mu ñëw Euh, ànd andak ñun ci combat bi pour que la justice soit faite et encore yak yi nga xamantene ak étudiants yi nga xamantene dañ leen a gaañ état bi mën ci taxaw. di leen di jaale Bassirou mi nga xam ne étudiant fac science la fac science la won lay wax sax alors dama bëggoon ngeen xam ne ñun wa fac science il faut ñu am luñ wax parce que tay jii bu fekkee université perte nañ 1 ñun wa fac science perte nañ 10 wa Diourbel ñom dañoo perte 100 ay famille moom lépp lañ perte tey jii nii ah, dañoo nekkoon fii étudiant nekk fii pour sàkku xam-xam waaye nguur daf ñoo ëpp doole ñëw fii dóor ñu gaañ suñu ay mbokk gaañ suñu ay rakk rey fi nit moo tax tey jii ñu koy naxaru tey munu mënuñoon def lu ne munoon nañ def lu ne waaye defuñ ko ndax dañoo am dëy mënoon nañu wacc terrain bi mënoon nañu tal dëkk bi waaye defuñu ko. raison pour laquelle ñu woote tey bii nii. récital de Coran wàccee Kamin. pour que son âme repose en paix. incha allah bëgg naa ngeen tàcc loolu bu baax. merci euh, li ma ci doli nag mooy Basirou n'est pas mort pour vain non deewul aussi parce que da doon xeex bourse mais da doon teewal étudiant yi man doo bëgg na mu bëgg ñëpp xam loolu noonu.

étudiants yi nga xamné manam ño am ay gañu gañu ci hôpital. ño ngi ñaawlu ñun fédération nationale parents d'élèves. di wax ni li am gënaluñu té rafetul. violence fep fu mu nekk ci université du Sénégal wala ci biir njang mi rek ño ngi koy ñaawlu di ñaan yalla li yalla bu mu amati ci suufu Sénégal. ñu ngi leen di nuyu ci touru convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin ñu koy woowee COFULEF. ñun jigéen ñi nak dafa jotté ñu jóg and ak parents d'élèves yi nga xamné ki mo moo nekk sama ginnaw elle va euh, dire son mot. dañoo bëgg ñu ànd def croisade pour la non violence université bi la ñu am dañu war a xeex pour mu baax bu bonoon président du fi génne kon UCAD bi mu ñu amoon dañu bëgg UCAD boobu dellu si suñu doomi jàngee fii باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين وأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء اللهم الطف بعبدك بسير الفي بلطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي واستره بسترك الجميل الذي سترت به نفسك حتى لا عين تراك ولا يد تصل إليك في مماته هذه وعند سؤال الملكين وعند الحشر والبشر والكشر والحساب اللهم استر عوراتها وأمن رواعدها وثقل ميزانه بالحسنات اللهم اجعل جوازه على صلاتك البرق الخاطف أو الأسرى اللهم نجيه من ظلمة القبر وضيقه وضعطته ومن أكل ديدان اللهم اجعل بشرفي في من الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم بحق قولك أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مصرا اللهم اجعله من الذين لا يرون في قبورهم غير ما يصرهم الله أظله تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك في ظلة شيخنا وشيوخ كل وفي زمرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله من الذين تبدل سيئاتهم بحسنات بحق قولك إن الحسنات يزهمن السيئات اللهم اجعل بشير فين من الذين قلت في كتابك العزيز وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة طهر وهم في آخر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات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 seen bir émission au fond des choses yéen mbokku téléspectateurs yi ñoo seetaanandoo li nga xamante mom moy lu triste li nga xamante amna ci bir université Cheikh Anta Diop dañuy ñaan yalla rek mu bañ dalate fi ndax gis nañ kay yi nga xamante ne bëri nañu nga xamante ne nañ ci bir université Cheikh Anta Diop

téléspectateurs LCS émission bi jeex na l' émission tire à sa fin ñu ngi jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci émission de près ou de loin di jaajëfal madame Kan Mam Naar may ngi jaajëfal Adama ci maquillage bi may jaajëfal ki nga xamante ne nag moo jaar fi tey ah defal ma lu pop lii muy Koura Fall ah Nek rue 43 angle 28 ci numéro de téléphone mingi ngi ci suuf écran bi 77 645 19 95 ma koy jaajëfal bu baax di jaajëfal ki nga xam te moom madame Fall Amina di jaajëfal sama caméraman Pape Sarr sama monteur Diallo Van Douze di jaajëfal toute l'équipe de la LC sama directeur de production sama réalisateur Eliman Faye on se donne rendez-vous dans 15 jours ci seen beneen émission au fond des choses ciao ciao